أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko biiznillahi tabaraka wa taala mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi fas yéene jël ñaari aaya ci suratu nisa aaya 153 la ñuy jël ak aaya 154 ñaari aaya yi doomu ndey yi nu ngi nuy jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy tanaat ahlul kitaabi izaa daawa al islaamiya wa kufrihim biha ala ilmin annaha daawatu xaqin bañ gi nga xam ne bañ na ko fettéerlu na ko ñooñu ñuy wax ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan weddi gi nu weddi ak féttéerlu gu nu féttéerlu wow koŋ wane seen péete ne ñoom ay yahuud lañ ak ay nasaraan bokkuñu ci lislaam ak lor gi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi nu koy feeñalal ne dañ koy lor jullit ñi ak di leen jalti jalte fu nu mën a nekk ci seen mbiru diine mu ne wa kufrihim biha ak weddi gi nga xam ne ñoom weddi nañ ko lislaam musuñu ko gëm te duñ ko mës a gëm te dëgg-dëgg annaha daawatu xaqin islaam mooy woote dëgg waaye ñoom yahud ak nasaraan leer na leen xam nañ ko waaye telewul rek ñu ni ci ay gàllankoor weddi kii di yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye weddi wooteem ñaareel bi mooy bayaanu qabaihul yahud wa xubsihim ay dañuy leeralan bon gi nga xam ne bon na ko xeet wii di yahud ak seenug salte seenug tilim loolu nag tàmbaliwul jamono yii déedéet allaazima lahum tuula xayaatihim loolu dafa takkook ñoom diiru seen dund ñoom yahud dañoo bon dañoo tilim dañoo bari bakkaar ñu bon lañ loolu dafa takkook ñoom dëppi loolu tax yàlla di ñu wax seenu mbon di ñu ko leeralal pour ñu xam ko ñetteel mooy naqdul yahud lil uhud wal mawasiq fecc gi ñuy fecc kóllëre lu ñu wax duñ ko def nee na loolu asbaha lahum laa yufaariquhum abadan loolu du tàqaliko ak ñoom noonu lañ mel ñii nga gis nii tey protocole yi ñuy signé ak waa Palestine ak yi ñuy signé ak jullit bi yëpp dara yëpp la ñuy xët loolu nag ku yaakaar ne léegi la commencé da ngay nax sa bopp ah ñoom noonu lañ mus a mel depuis ba ñu nekkee ay yahud ba fii nu toog bi yàlla bindee asamaan ak suuf lii di xeetu yahud ne pour tax ci kaw suuf ba fii ñu toog noonu lañ mel su fekkee nag sunu borom moo nuy informé di nu wax ñun jullit yi te sunu borom lim nuy wax di ñu ko xabaar di ñu ko xamal ñun duñ ko dëggal wala duñ ci bàyyi xel lu muy tekki mooy sunu borom lim nuy wax duñ ko gis te loolooy li am ku xool tuuti rek yahud yii nga xam ne seeni maam ñoo fi nekkoon démb ak Muusa ñoo fi nekk tey ak ñun ñoo fi nekkoon démb ak yonent bi mosuñu am changement suñ daggoon sax depuis jamono yonent ba fii nu toog mënuñu am mësuñu am changement nii rek lañ mës a mel nii la ñuy mel ba yowmal xiyaam jot ndax yàllaa ko wax yàlla lu mu wax mooy dëgg walisa looloo tax wajaba adamu siqati fi uhudihim ñun liñ ñu sant ñun jullit ñi mooy ñu bañ a am ci ñoom confiance ki perte jullit bi perte mooy jullit bu wóolu ab yahud jullit bu am ci moom confiance kooku perte na wa mu waalaatihim ki farak ñoom nag moom ay yéef yéeféer la ki leen jox kóolute jox leen nopp comme yàggul dara dégg ngoon fi benn koor boo xam ne dañoo invité ay imam ñu dem ndogu ji fa bal sax yamatuñ waaye dañoo dem ñu financé leen ay grand projet ñu ñëw fii di wax loolu lu muy tekki mooy ñàkk dégg waxu yàlla ku la yàlla tere ku la yàlla ne bul wax ak moom انتهيت؟
نعم رأيت ما قال بعد ذلك جزاك الله خير kon ku la yàlla tere ne la bul wax ak moom bul jëfandikoo ay mbiram bul far ak moom yow nga dem waxuma la dara ndeysaan wala fi dañuy léeb ne boo gisee sa tubéy ngeen baal ma baat bi boo gisee sa tubéy ci sa taati xarit xanaa dañoo bëgg a wax rek soo gisee sa noon mu sol sa tubéy yu xarit bu yeboo nga moytu xarit boobu sa noon soo ko gisee mu sol sa tubéy yu xarit bu yeboo nga moytu xarit boobu léegi nag koo xam ne dafa noonu jullit yi nga gis ko ñu invité ko ay ndogu financé ko ay projet kooku noo ko war a def est ce que war nga ko jox jumaa muy jiite jullit ñi hmm. abadan waaw dañ ko war a folli kooku wartul jiite jullit yi parce que li ko yàlla tere loolu la defee mbokk jullit yi ñetti aaya yi moom la ñuy jël tey ci suratu nisa ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génne aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi mu ngi wax ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax ak jullit yi mu ne yasaluka mi ngi lay laaj alkaaf addamir liman man huwa almuxaatab muhammad kan la yàlla di waxal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ne ko yas aluka mi ngi lay laaj yow yonent bi ñan ñoo lay laaj ahlul kitab les gens des livres yahud ak nasaraan ñoo lay laaj lan lay laaj lan lañ lay laaj an tunazzila alayhim kitaaban min as-sama ñoo ngi lay laaj na la yàlla subhanahu wa taala wàcceel benn téere téere bi nag bu mu génn ci biir suuf bu mu génn ci biir géej na jóge ci asamaan na nga yéeg taxaw fii yéeg ñu lay xool te bul teg eseel na nga naaw dem bënn niir yi dugg ci asamaan bi soo demee foofu nga wàccaat soo ñëw na nga bokk benn téere buy wane ne yow Muhammad mi yàlla la yónni dégg nga yow mii soo ko defee rek ñu gëm la mu ne lamma na rab bi yàlla subhanahu wa taala dàqee ahlul kitaabi qawluhum seen wax ñoom ahlul kitaab wax ji bi ñuy wax ne nu'minu bi baad rusul wa nakfuru bi baad ñun danañ gëm leen ci yonent ñu wedd ñeneen ñi la ñu waxoon yàlla daal di koy dàq ndax ñoom amana al yahud bi Muusa wa kafaru bi Isa ñoom yahud yi dañoo gëm Muusa weddi Isa wa amana al nasara bi Isa wa kafaru bi Muhammad ñoom nasaraan yi ñu gëm Isa weddi Muhammad kama kafara bihi al yahud aydan comme ni ko yahud yi weddee yahud yi moom ñaar yëpp lañ boole jalgati dañoo weddi isa weddi muhammad amma nasaraan yi ñoom luñ def dañoo gëm Moussa weddi muhammad noonu lañ def nasara mooy chrétien yi ñoom dañoo gëm Moussa dañoo gëm isa gëm Moussa weddi muhammad amma yahud yi nag ñoom Moussa rek lañ gëm weddi ñaar ñëpp ñee nag dañoo gëm ñaar ñee weddi kenn ki ñoom ñëpp yàlla booye leen dugal ci pot ne bokk bokkuñ ci yàlla nag léegi di dalal xelu yonent bi ne ko yahud yi ñu ngi lay laaj ahlul kitaab ñu ngi lay wax lan ne yow muhammad na nga dem kaw asamaan wala boo demul yàlla wàcce fii nga nekk nii toog fi nga toog nii rek na benn téere ñëw boo xam ne globalement amul ay aaya tey jii buñ la laajee aaya jibril ñëw wala suba nga jékki-jékki daan ne aaya wàcc na déedéet ñoo lànk loolu ne téere bi ñëwandoo globalement rek min fatiha ila ila naas mu mat sëg 114 saari bu bu bu fi benn aaya di ne ne yëpp ñëwandoo loolu mooy lan yàlla ne muhammad nag li warulaa jaaxal lu tax warulaa jaaxal isa saaluka an tunazila alayhim kitaban min asama buñ la laajee na nga wàccee ci ñoom benn téere fala taajab bul wa bul waaru bul tardeel sa bopp min qawlihim ci seen wax ji bu mu la yéem ndeysaan ala taxfal bihi is haadihi sunnatuhum wa haada da'buhum nii mooy seen melokaan ñoom yahud bu leen fàtte banu israil ñëwoon nañ ci Moussa mi nga xam ne yàllaa ko yónni ci ñoom ñu ne ko dañ lay laaj dañoo rey sunu mbokk bii ñu lay laaj lu ci yàlla wax dañoo bëgg xam ku ko rey lan la leen Moussa tont ah dem leen ngeen rey nag bi mu leen waxee dem leen ngeen rey nag yonent bi nee na buñ génnoon rek nag bu ñu njëkk romb jël ko rey ko ji doy na waaye lu ñu wax udoo lana rabbaka yubayyin lana ñu topp leen alxuraan topp leen topp leen topp leen ba ba ñuy wax wa inna insha allah la muhtadun ibnu abbas ne bu ñu waxul woon insha allah mu ne lamma saddu saddadallahu alayhim bi ñu taralee mbir mi naan couleur bi nan la mel nag bi dafa war a kii yàlla taral metti ci ñoom noonu lañ musa mel kon tey suñ la waxee yow mii na la yàlla wàcceel benn téere globalement boo xam ne amul ay saar yuy dagg ba téere bi mat loolu bum la jaaxal ñii lii mooy seen melokaan ku leen xam lii mooy seen melokaan ñoom yahud yi lii mooy seen aada fa innahum qad saalu muusa qabl fa innahum qad saalu muusa qablaka azamu min haza laajoon nañ muusa lu gën a rëy loolu lan lañ waxoon muusa yàlla moo ñu koy nettali mu ne ahlul kitaab ñu ngi lay laaj an tunazila alayhim kitaaban min as-sama nañu ne leen yàlla wàcceel benn téere boo xam ne kaw asamaan la jóge yàlla mu ne faqad saalu Muusa akbara min zalika laajoon nañ yonent yàlla Muusa lu gën a rëy loolu Muhammad lan lañ ko wax indil ñu benn téere buy wane ne yàlla la yónni Muusa moom lan lañ ko wax dañ ko ne arina allaha jaharatan wan ñu yàlla face à face nag ñu wan yàlla nii jëhëran ñu jàkkaarloog moom nii ñu koy xool mu ñuy xool nii face à face xanaa mënoon nañoo wax wan ñu yàlla rek doyoon na wala mais lan moo tax ñu def ci jaxaratan pour dëgëral dëgër bopp ak dagniiral léegi nag mbokk yi fii sénégalais yi wane yàlla ak aaya bi lu ngeen leen di wax wala amul fii ñuy wane yàlla kaay da ngay taxaw benn waay ne la kaay ma wan la yàlla bal sax mu ne la man mii di wax ak yow yàlla laa ah ndeysaan banu israil ñoo ne woon Moussa won ñu yàlla jaharatan naas face en face en direct nag ñu woon yàlla allahu akbar kon yow Muhammad bu ñu la waxee lii bu mu la métti ndax ñoom seen yonent bi yàlla yónni ci ñoom lii lañ ko takkaloon ay pot ne ko won ñu yàlla ba ñu waxee loolu lan moo leen dal yàlla nee na fa axazathum mu jàpp leen assaiqatu benn xaaju malaaka moo xaaju ci ñoom ñoom ñëpp ñu dee allahu akbar fa ardabullaha ba ba ñu waxee loolu rek dañoo merloo yàlla lu toll ne ab yonent yàlla yónni ko mu ñëw di wax ak yéen amuleen lu ngeen koy tontu lu dul wan ñu yàlla yàllaa ma yónni ñu ne ko wan ñu yàlla kon ça veut dire que lu ñu ko wax mooy gëmuñu la est-ce que li nga wax wóor na est-ce que dëgg la ana yàlla fan la nekk nu mu mel léegi sax xam nga lan la ah da nga ñu koy won direct ñu waxee loolu rek yàlla mere leen allahu akbar te meru yàlla xejul ci nit benn malaaka moo leen xaasu ñoom ñoom ñu wow koŋ ñëpp dee waaw kon ñi wane yàlla fii Sénégal nag lu waa lu Moussa deful woon moom ci boppam moom Moussa ba mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla di wax ak moom tuuru Sina ci montagne ba wax ji neex lool borom xam-xam yi nee nañ yàlla bi muy wax ak Moussa Moussa nekkul ne nopp yi ñoo doon dégg fi mu nekk nii li may wax lu tax mu neex ci yéen fan ngeen may déggee ah fan ngeen may déggee nopp Moussa bal Philippe fu doon génne kawar ci yaram bi da doon dégg fépp fu am kawar ci yaram bi da doon dégg waxu yàlla walla borom xam-xam yi wax ci lool ndax waxu yàlla la yaram bi yépp doon dégg wax ji neex Moussa ne yàlla dama laa bëgg a gis fa neex yàllaa ngi ci ginnaaw leer gi moo dox garab bi di leer tàkk Moussa mu ngi dégg dafa ne ne yàlla mu ngi fii ci ginnaaw fii fii nii kon yow yàlla boo dindee garab gi rek dinaa la gis mu ne yàlla waaye duma laa bëgg a gis de yàlla mu ne ko lan taraani lan yéen ñi jàng arab lan la ko wax lan taraani munoo ma gis allahu akbar Moussa insisté yàlla ne ko Moussa munoo ma gis Moussa insisté yàlla mu ne ko da nga ma bëgg a gis mu ne waaw mu ne ko xoolal montagne bi unzur ila aljabali in istaqarra makanahu sawfa tarani xoolal montagne bi su saxee su riposté dëgër këcc bañ a bouger fi mu nekk sawfa la ko wax de ba tey amaana amaana nga gis ma amaana nga gis ma allahu akbar borom bi nee na fa lamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan bi yàlla feeñoo montagne bi borom xam-xam yi nee nañ yàlla nan la feeñoo montagne bi mooy ay ferñeent xam ngeen ferñeent ah dégg leen wolof étincelle kon étincelle xam ngeen étincelle booy boyal fourneau nga upp ay tepp-tepp mu naan tif tif génn ñu ne yu toll noonu la yàlla jël ci leeraayam daal di koy sànni ci montagne bi montagne bi explosé falamma tajalla bi yàlla feeñoo montagne bi maanaam montagne bi mënta riposter li mu li yàlla génne ci moom pour montagne bi jàkkaarloog loolu montagne bi mënu ko mënu ko mënu ko dékku montagne bi explosé daal di màbb nekk pënd ak poussière Moussa xëm léegi Moussa ulul azmi min ar-rusul wala Moussa ci ulul azmi la bokk wala bokk ci Moussa beneen ndomba tànk bu mu takk mooy kalimullah Moussa wax na ak yàlla wala yàlla wax na ak Moussa beneen garaata nga beneen bu Moussa takk Moussa fan la nekk ci asamaani juróom-ñaar Moussa ci asamaani juróom-ñaar fan la fa nekk yonent bi fan la fekk Moussa bi muy gi ñaan ah loolu la duma ko tontu boobu laa koy bàyyi bu ngeen demee ngeen gëstu ci ko déggu leen loolu xanaa kan moo tax ñu doon wàññil julli di yonent bi bu demee ñëw day fekk Moussa toog mu ne i yow sa xeet mënuñu lii de dellul Moussa yonent bi dellu kon Moussa fan la nekk ci kaw asamaan yi ah xaw ma ko de ngeen gëstu gëstu ji leen tamit xaw ma ko du ma ko tontu ngeen demee ngeen gëstu ji ko ba samedi bii di ñëw ngeen indi lu leer day yomb ngeen toog cinq minutes kenn tontul bëgg a jekki ne juróom-ñaar yomb na trop kon kooku di wax amul yaqin ci li muy wax su ngeen jógee ngeen xooli xoolal garaat bii mu takk yépp Moussa munta gis yàlla allahu akbar léegi benn sénégalais bu lekk dëxin mbëpp wala mu lekk cëriñ mbum bu biiram fees mu yeewu ne moom yàlla la wala gis na yàlla wala kaay leen ma wala leen yàlla est-ce que xel nangu na loolu gars yi bal sax léegi gars yi dootuñu wax kaay leen ma wala leen yàlla dañ naan ñun yàlla lañ allahu akbar ñii moom yàlla nee na ba ñu ko waxee yàlla da leen a mere fa axzathum saaiqa wa hum yanzuruun benn malaaka moo leen xaac ñoom ñëpp ñu dee direct ndax wax jooju ñu wax ne ñun dañoo bëgg a gis yàlla dañ koo wax rek yàlla rey leen ne ñun dañoo bëgg a gis kon ki ne gis naa ko nag te yàlla laa tudrikul absar wala loolu du alxuraan moo tax man dina ma jaaxal rek mu dégg Sénégal ñu ne ñii dañuy gis yàlla wala kii yàlla la nit ñi am ñoo xam ne fàq nañ dem ci loolu ba pare nga gis ku dëgër fit waaw waa léegi sawaay nu mu demee mu ne gis naa ko kay dëgg la kay gaa yi wax nañ dëgg de léegi fu ñuy dugal aaya laa tudrikul absar yàlla bët mënu koo gis loolu du aaya alxuraan laa tudrikul absar yàlla nee na bët mënu maa gis te loolu mun nañ ko démontrer bët mënul gis yàlla lu tax mënul gis yàlla est-ce xam ngeen lu nekk ci ginnaaw miir bi ma wéeru ah bët bët dafa limité gisam dafa am dafa limité wu fi mu nekk ni yéen ñi ci biir jàkka ji li nekk ci biir jàkka ji rek ngeen di gis te sax bal am na ñoo xam ne li nekk ci biir jàkka ji yëpp gisuñu ko parce que seeni bët dafa limité wu wala kan ci yéen la bëtam yi bënn miir yi dem ci biti su fi kenn waxoon léegi man de maa ngi sama bët yaa ngi bënn miir yi gars yi dañ naan ko yow dëmb nga alors gars yi di wax léegi daw kii du nit kii de dootuma fi toogati dootuma ñëwati tafsir loolu gars yi di wax bët dafa am fu mu yem wala foo nekk sa bët loo xool xool xool après foofu la yem munul jàll foofu yàlla moo ëpp loolu mais yàlla moo ëpp miir bi moo tax mënoo koo gis ba mu jeex tàkk abadan doo ko gis jàkka jëpp yéen a ngi gis lépp yéen a ngi gis ci kaw yéen a ngi gis ci biti yéen a ngi gis ci biir moquette yi li fi nekk lu tax seen bët dafa am fu mu yem léegi nag yàlla nu mu ëppee loolu ba bari ngeen bu ko gis yàlla laa tudrikul absar loolu leer na léegi ah wa huwa yudrikul absar yàlla mooy gis bët beneen qaida usul dañu ne fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik lépp loo xalaat ne yàlla nii la mel yàlla melul noonu fi mu nekk nii ñun ñi ci biir dars bi yëpp ku nekk am na nooy xalaate yàlla noonu la mel te bokkale wuñ ko wala bokkale wuñ ko mën ak yéen wala ku nekk am nga jëmm image booy gis ne ah yàlla de xanaa nii la war a mel bokkale wu ma kaw yéen yéen bokkale wu ko mun yàlla melul noonu lu tax laysa ka mislihi shay yàlla nuroowul ak dara léegi su yàlla ne man nuroowuma ak dara ki gis dara ba ne ko di ko misaal ne gis naa yàlla dafa am lu mu gis ba mu ko misaal te yéen ñi toog nii bu ngeen ma bëggoon misaal day yomb wala du yomb ah day yomb ngeen ne oustaz lii la mel nangam nangam ah ah ah man tamit yéen ñi nga xam ne xam naa leen fii su ma leen bëggoon misaal ku ñëw ne ma yow xam nga mbokk boobu nangam nangam man man mbokk mu ne jouru dars bi ki toogoon nangam nangam ah ma ni ko ah ah rapidement rek image am day ñëw ci man ma wax turam waaw yàlla nee na ma nuróowuma ak dara kon noo ko xamee noo xamee ne kii moom la benn waay dane am na benn waay bu du doon taal taal da daan bind ay téere secret yooyu di ko nekk ci rajo dunia am na fi ñu ko xam ah day bind ay livre livre bu xaaba ne day joxe ay secret ñu jox ko rajo dunia muy muy mu ubbi émission bu waaraatee ba sonn daal di tëj 30 minutes émission 30 minutes question réponse wala ku gént mu firi ko benn waaye daal di koy woo téléphone ne ko man de damaa gént gis Seydina Muhammad mu allah allah allah allah allahu akbar oh yow de texee nga texee nga texee nga gént allahu akbar kooku ku ko gént moom la gis waa ji ne ko li ma jaaxal dafa ñuul mu ne hmm, hmm. ku nekk xam ne ne Seydina Muhammad ñuulul du nit ku ñuul gis nga léegi kon kooku gént Seydina Muhammad mu ñuul maanaam gént na nit ku baax ku ñuul waaye du Muhammad nag loolu tax kenn mënut a gis yàlla gaa yi yonent bi nee na nag yàlla kenn mënu koo gis ci àdduna alaaxira lañ koy gis alxuraan moo wax ne alaaxira la ñuy gis yàlla yàlla wax ne alaaxira sax am na ñoo xam ne bu ñu fa demee duñ gis yàlla kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuun daal nee na ñii mel nii yow man xiyaam bu ñu demee sax ñii moom duñ gis yàlla waaye am na fa ñoo xam ne wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naazira yowmal xiyaam yàlla nee na am na fa kanam yoo xam dañoo leer nañ dañuy jàkkaarloog seen boroom di ko gis yonent bi ne innakum sa tarawna rabbakum kama tarawna haadihi alqamar aw haadha alqamar di ngeen gis seen borom comme ni ngeen gisee weer wi ëllëg yowmal qiyaamati ni ngeen gisee weer wi yonent bi ne sahaaba yi ndax bi ngeen gisee weer wi loru ngeen ci leeraayu weer wi ba mun leen koo xool xool jant bee xool weer wi bu gën a yomb xool weer wi lu tax parce que weer wi leeraayam du la sonal yonent bi nee na noonu ngeen gisee weer wi mu leer ba leeraay bi sonalu leen noonu ngeen di gisee seen borom ëllëg yowmal qiyaamati kon ñii wax fi dañoo gis yàlla ak ñii joxe fii ne ñoom ay yàlla lañ ak ñii wane ne ñoom dañuy wane yàlla am na sax ñoo dem dem nañ léegi ba jël tarixa yàlla yàlla am na ñoo xam ne seen tarixa mu ngi tudd yàlla yàlla ñoom ay yàlla yàlla lañ léegi ñoom passé nañ nit passé nañ jinne passé nañ malaayika ñoom ay yàlla lañ loo xam ne yonent bi amul woon loolu sahaaba yi amuñu ko woon Aboubacar lu muy baax baax baax musul wax ne man gis naa yàlla ñoo xam ne dañ doon toog jibril ñëw allahu akbar bal sax jibril da doon am benn melokaan ci melokaanu sahaaba yi ku mu doon mel ku tudd di xeetul kal bi yonent bi toog waxtaan ak jibril day ñëw toog waxtaan ak yonent ba génn yonent bi ne ata ata atadruna mani saail xam ngeen ki doon laaj sahaaba yi ne allah wa rasulu alam yàlla yonent bi moo ko xam mu ne jibril la gars yi daw njëkkante porte yi fekk dem na yoonam ndeysaan allahu akbar ñooñu amuñu woon loolu xoolal nuñ mel umar nga xam ne dafa ragaloon yàlla am ngëm am imaan ba bu jaaree ci yoon seytaane jaar beneen yoon umar gisul yàlla usmaan allahu akbar gisul yàlla ali bañ ko waxee dane yàlla de moo koy gis ci sama xol laa koy gis waaye mënuma koo gis ci samay bët waaw léegi ñun waxuma la sax waaye nitu vingt-et-unième siècle nitu aaxiru zaman nit koo xam ne jàngul alxuraan nit koo xam ne hadis yonent bi xamul ci dara nit koo xam ne amul benn pas-pas ba baa ngi baramu mel ne puubu kaña tubéy bi ci ndigg ci ci pooj yi la koy takk maa nga salte ci lim day toog ay weer du sangu mu ñëw ne la gis naa yàlla walla man yàlla laa balgaa yi foog ñu leeral lii pas-pas yi balaa jullit yi di sànk kenn mënta gis yàlla kuñ fi nax ba jox la benn wird nga koy wird seytaane la du yàlla seytaane nga gis mi gisoo yàlla mën nañ la jox wird nag ngay wird benn ponkalu jinne feeñu la ne la maay yàlla ngay dàpp ne gis nga yàlla loolu mun na nekk de mun na nekk parce que jinne yi c'est facile ñu ñëw ci yow boo lëkkaloo ñoom rek am jinne léegi boo lëkkaloo jinne léegi nga am jinne da ngay def benn kufru rek benn ci pànk lislaam yi ngay xët wala nga def benn mooy yàlla boo xam ne kabair boo xam ne kenn dootu la ëpp bakkaar jinne ñëw léegi nekk sa xarit képp koo gis mu ànd ak jinne dafa xëtt arkaanul islam moo tax mu am jinne ndax abubakar amoon na jinne umar amoon na ko imam malik amoon na jinne ah xoole imam malik mu jëntalu dundam nee na guddi gu ma tëdd dinaa gis yonent bi mais wax musul wax ne gis naa yàlla xool abu hanifa imam shafii ahmad ah ahmad nga xam ne moom lañ tuddee imaamu ahlu sunna wal jamaa dañ ko nat ci mihna jamono ju metti ju tar jañ doon mbugal gaay borom xam-xam yi nee na ñu yeew ko di ko dóor ba sër bi mu taraaxlaayo woon bi mu daggee dañoo gis ay loxo wàcc ci kaw asamaan takkaat sër bi musul wax gis naa yàlla musul wax gis naa yàlla allahu akbar fii ay xottu gerte ay xottu orange ay nit ñoo xam ne duñu dara ne dañuy gis yàlla wala dañuy wane yàlla pas-pas boobu wérut de ku ko gëm bu yeboo nga xam ne dugg nga ci kufr booy dee rek yaag yàlla subhanahu wa taala di ngeen la yow waa banu israil ba ñu waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam na leen wàcceel téere an tunazila alayhim kitaaban min as-sama yow yonent nag ñu wàcceel benn téere bu bàyyi ko asamaan yàlla ne ko dalalal sa xel bul réyal ñii liñ la wax bul yéemu bul jommi bul waaru faqad saalu Moussa akbaru min zalik waxoon nañ yonent yàlla Moussa lu ëpp loolu téeméeri yoon mooy lan fa qaalu arina allaha jahratan wax ñu yàlla face à face direct yàlla nee na bi ñu waxee loolu fa axasathum jàpp na leen assaiqatu xaacu ba sawtun benn kàddu benn baat haad wa rajfa anifa saiqu biha benn rëngi-rëngi benn xaacu la leen malaaka xaacu ñoom ñëpp ñu dee wow koŋ kenn ci ñoom dugg dundatu yàlla nee na loolu nag li ko waral mooy bi zulmihim ndax dañoo tooñ lan mooy seen tooñ ñoom lan lañ def lan mooy seen tooñ mooy wax ju rëy ji ñu wax na lan nan leen wan yàlla loolu wax ju rëy wax ju jaaduwul la wax ju dul yoon la wallaahi am na ci ministre yi sax ñoo xam ne mënuñoo wane président wala am na ci député yi ñoo xam ne mënuñoo wane président wala am na ci dëkk bi ay kilifa yoo xam ne mënuñoo wane président am na ci bëkk néeg yi ñoo xam ne mënuñoo wane sëriñ bi wala nangu leen li may wax waaw léegi nag yow nga bëgg a wane yàlla nga bëgg ñu wan la yàlla nga bu koo takk ne yàlla nañ la ko wan pour nga yàlla moo tax mu ne seen sababu dee boobu li ko waral mooy bi zulmihim ci tooñ biñ ma tooñ man yàlla tabaraka wa taala dañ ma tooñ tooñ gi mooy lan bi sababi zulmihim bi talabihim maa laa yambaxi ndax dañoo wax loo xam ne waruñu ko wax dañoo sàkk loo xam ne mënta nekk waaw mënta nekk li ñu wax moom mënta nekk mooy wane yàlla léegi nag mbokk jullit yi ma ne Moussa garaat yi yëpp mu takk ndomb tànk yi yëpp mu takk su fekkee mënta wane yàlla yéen yaakam jàpp ngeen am na sénégalais bu am martaba bay wane yàlla ah xel rek xel xel xel xel Moussa ulul azmi munu ko yéen ngeen jàpp ne yéen amuleen amuleen yonent amuleen rasul amuleen nabi amuleen mursal ah li ma gis ci internet bi fan yi moom fii sam portable waa ji ne sunu sëriñ bi moo raw awliyaaw yi moo raw yonent yi muhammad mii ñuy wax sax sëñ bee ko dàq jaamu yàlla sëñ bee ko raw ku ko wedd bu ñu génnee léegi ma taal sam portable internet wan la ko xool loolu nu mu grawee loolu kéeféer la wax loolu yéeféer rek moo koy wax képp ku gëm ne sa sëriñ moo gëm Muhammad yow yéeféer nga képp ku gëm ne sa sëriñ moo raw yonent yi yéeféer nga yonent bi nee na maa wataatil ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr ginnaaw xeet wi ginnaaw yonent yàlla Muhammad yonent yi sahaaba yi ci gën ginnaaw sahaaba yi taabiin yi ñoo ci tegu xoolal ko xuma rek waa ji romb taabiin yëpp ñëpp bombardé leen bombardé yonent yi ñëw bombardé yonent yàlla Muhammad inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te kooku fu mu dëkk Sénégal keroog wax naa fii loolu benn waaye ne yéen da ngeen a yéen yéen waa Sénégal da ngeen a xeeb seen bopp bu ñu waxee rek ngeen ne màkk mais réew mi réew mi am na lu fi yàlla def kan moo ne réew mi yàlla dafa fi dara waaye dañu ne li fi yàlla def li ñu def màkk moo gën a rëy wala loolu ngeen gëm wala gëm leen loolu màkk mooy ngën gi dëkk yonent yàlla Muhammad màkk la dëkk moo gën ci nit ñi alxuraan mooy ngën gi téere màkk la wàcc ndox mi ñuy naan mu gën ci ndox yi màkk la nekk xibla bi màkk la nekk néeg bi màkk la nekk lépp màkk la nekk waaw màkk la nekk waaw léegi nag lu fi uti am ngeen ay xeer nag dëgg la am ngeen ay garab am ngeen lu nekk waaye nag gënul nag lee nag ndax ngëneel du nekk jekki rek nga wax ko waaye dalil mooy ñëw ci loolu dalil boo xam ne yàlla moo wax ne lii moo gën benn xeer rek la ñu wax ci àdduna bi moom la ñu war a laal su jóotal ko benn xeer kese la xeer boobu yàlla moo joxe ndigal ñu laal ko fal yaabudu na ngeen jaamu borom néeg bi gis nga kenn du jaamu néeg bi Omar ñëw na ba ci xajaratul aswad mu ne alimtu annaka xajar xam naa ne yow mi xeer nga laa ta dur wala tanfa doo lor doo jëriñ xajaratul aswad ajjana la jógee law lam ara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuk su ma gisuloon yonent bi di la fóon du ma la fóon ah waaye damaa gis yonent bi fóon la kon nag dinaa la fóon daal di koy fóon allahu akbar yéen nag fii Sénégal ana xeer bu gën hajaratul aswad billahi wallahi wa taalahi am na foo ko doon laaj benn waa yuuxu ne la xeeru sàngam moo gën hajaratul aswad wa na ngeen def attention de suba waa ne nga am problème nag keree nañ ko de waaw soo doon wax léegi ndox mañu màkk ñu ne la dimbalinu suñu ndox mi soo doon wax léegi jàkka ja màkk ñu ne la dimbaliñu suñu jàkka ji nga ni yonent bi ñu ne suñu sëriñ bi kon kay léegi ñaari diine la nekkatul benn diine kon nag mbokk yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu waru ku bëgg a dund diine da ngay tënku ci li yàlla wax ak yonent boo ci tënkoo rek doo juum waaye boo demee ngay déglu ndànd foy foy dékk sa nopp ku nekk mbirum islaam mbirum diine du xumb xumb du mbooloo mu bari mbirum dëgg la dëgg wallahi boo nekkee ci dëgg anta jamaa mbooloo nga bu nekkee ci dëgg galile xam ngeen ko ah galile xam ngeen ko te dañ ko reyoon luy sabab bi mu ne suuf si dafa ron gars yi daal di koy weddi pendre ko rey ko moo nekkoon ci dëgg wala nekkoon ci dëgg tey jii ñëpp nangu nañ ne moo nekkoon ci dëgg nekk leen ci dëgg soo nekkee ci dëgg même boo dee kenn yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg àdduna bi lu mu tourné tourné dañuy xam ne yow mi yaa nekkoon ci dëgg benn waaye mas na laaj benn wird mu ne ndax wird bi moom dafa yaakaaroon ne wird bi ci alxuraan la nekk mu dégg ko ko weddi ne nekkul ci alxuraan rek mu ñëw ci waa ji ne ko gis nga yow gis nga yow mii xaaral rek waaye na ko déet defal ndànk bul mer mu ne ko man dama lay wax rek boo demee nga laaj sa sëriñ ndax wird bi mu ngi ci alxuraan demal rek na la woon fu ñu ko bind ci ban saar nga recopier ko ngay nil ma mu dem xam naa toog sëriñ bi ne ko damay laaj ndax wirdu nangam mu ngi ci alxuraan sëriñ bi bu ko wax waaw xam nga baat bi mu ngi baat ba mun a ko déedéet wird bi complètement laa wax nii ndax ab saar la mi ngi dañ ko bind mu ne ko waaw déedéet loolu na mu ne waaw waaw loolu rek laa bëggoon mu ñëw ci waa ji nag léegi ndeysaan mu ne ko ah xam nga gis nga wax ngeen dëgg nag wax nga dëgg waaye na nga def ndànk na nga def ndànk nag daf leen ndànk wax nga dëgg nag waaye daf leen ndànk di mer mer la waaye na ko déet comme wax naa dëgg kay léegi amatul ndànk comme dëgg dëgg la tey li ma bëggoon rek mooy nga xam ne nekku ci alxuraan ba nga ci rey sa bopp loolu loolu mooy dëgg bi gis nga fii gars yi li ñu lay wax lii lépp koo ci tegal téere alxuraan ne ko wax ma fu mu nekk du ko génne ñoom ñëpp nag ma ne li ñuy sonn fii ci réew mi laa wax koo ko tegal téere ne génne ko du ko génne billaahi wallaahi wa taala kon bu nu rek bu ñu sonn ndax du ndànk ay wane yàlla yi xew ci jamono bi ñu réeral doomu jullit yu bari sànq leen dara wéeru ci maanaam asaf ndaw yooyu tey lu dul ku ci yàlla namm yërmande dëpp la doo dëpp ndax sànq nañ la benn peeru sànq boo xam ne xoolal yéen yendoo fecc xanaa ne fecc ba guddi di fecc di tëb di tëgg loolu ban diine la diine fecc ak sabar fan ban ban di ban is fan ban téere la nekk amul yàlla amul julli amul dara ah amul sangu amul set an nazafa min al iman amul lenn diine loolu mbokk yi lii du diine te amul même sëriñ su mag si fi nekkoon amul kenn ko jàngale kenn ci ñoom musul wax ne dama leen di woon yàlla mus ko wax mu ngoog tooñ nañu yàlla ndax dañoo laaj loo xam ne waruñu ko waaj bi zulmihim yamuñ ci loolu ñoom banu israil gis nga tëbati nañ loolu su ma topp ittaxasu al ijla jàpp nañ yëkk wa ilahan fa abaduhu waaw dem defar seen yàlla def ko nag ñu war ko di ko jaamu ñu bàyyi yàlla xanaa ñi ñoo jur indo yi ñi jaamu nag yàlla la ñuy jaamu kenn du jaamu am mbindeef lépp lu nekk ci kaw suuf mbindeef la aalam kenn du jaamu loolu yàlla rek la ñuy jaamu al ibada lillah loolu ñu naan jaamu waaye yàllaa ko moom keneen dugg ci ku mu mën doon garab ndox jant weer nit biddéew amu ci place yàlla rek moo ko moom yamuñ ci wax ñu wax ñu wan ñu yàlla waaye ñu dem jaamu yëkk nag min baadi ma jaathumul bayinat ginnaaw ba dëgg leeree ne fàng ci ñoom Muusa ñëw wax ak ñoom ba mbir mi leer ñu ne fi ñukk Muusa dem jaamu ji ay xërëm loolu mooy li am tey yonti yàlla Muhammad ñëw na leeral na lépp alquran a ngi nii wax na lan mooy shirk mais xoolal nit ñi tey balaa nit di am lu ko neex bokkaale waaw bokkaale bokkaale billaahi démb damay sang benn néew pareegu ma rek am ku ñëw may leen ma ji perkaal bi ma ne ko ci xaj kenn mayu la day xërëmi ji ma pare bu bagage yëpp dara laa fa bàyyiwul même li ma doon sange néew bi dama ko def ci benn mbuus jox ko kenn ne ko demal nga gas moom xool nga suul ko waaw koo xam ne dama ko wóolu laa ko jox xam naa ne kii dina ko gas ma jël leneen li des lépp nga xam ne utiliser wuñ ko ma delloo ko kër ki gaañu bi pare guñ sax may leen ñu cheikh bi may ma ci perkaal bi xërëm rek fii bokkaale rek yenn saa yi ngay sang néew sax ñu indi yóbbaale yóbbaale yóbbaale xam ngeen yóbbaale mooy lan mooy gàllaaj bu ñuy def ci néew suulaale ko maa néew bi da ko ci yóbbaale ci biir du ko fa fekk moom da ko yóbbaale gis nga loolu nag buñ ci liggéeyee nit ba yowmal xiyaam noonu lay mel ba yowmal xiyaam laa wax waaw def ci gàllaaj loolu musiba gënu ko rëy te tey sénégalais la moo tax ngeen di gis néew yi ñuy sulli néew yi ñuy sulli loolu moo ko waral waaw am na benn waaye buy jaay ay jaaro ci facebook bi ñu dugg ci facebook dañuy gis benn waaye buy jaay ay jaaro jaaro yooyu ay xërëm ñoo ci nekk lu nekk moo ci nekk gis nga jaaro yooyu day am matière yenn saa yi boo xam ne ci nit la jógee moo tax na ngeen def attention ñëw na tale léegi Facebook bi la jël jaaro yi la kii jaaro cent cinquante mille jaaro vingt cinq mille dara dara daganu ci yëpp xërëm la dañ def ndànk gëstu suñu diine mbokk yi diine daal mooy li bàyyi ko ci yàlla ak yonent lépp lu wuteeg loolu daal bu yeboo ñu xam ne du diine imaam Malik nee na lépp lu nekkul woon diine démb mënut a nekk diine tey tey njabar lañ dugal Sénégal ba mu fees xërëm bokkaale nga gis kuy dox nekk ci jàkka ji di julli di fekk ngandum xërëmkat la te du taal la jàkka ji mu ngoog ngandum ndëppkat la waaw ngandum gisaanekat la yenn saa yi sax day ñëw ci jàkka ji du jàpp yenn saa yi mu dugg ak jàkka ji janaaba borom bi nee na gaa yi jël nañ yëkk bi jaamu ko ginnaaw ba dëgg gi leeree tey ñun lii ñuy def fii yëpp dëgg bi dafa leer nañ ci alxuraan ñu ne ko ñukk bàyyi ko fi yàlla mu ne xoolal lii yëpp li muy garaaw fa afaw na an zalika jéggal naa leen allahu akbar yàlla baax fa afaw na an zalik bal naa leen allahu akbar mu ne wa aatayna muusa sultaanan mubina indil naa muusa hujja lay waadi'a bu leer nañ wa qudra kaamila qahara biha aadaahu indil naa ko lay preuve yu leer yu ne keng wax yu leer nañ kattan bu ne weñ nga xam ne noote na ci ay noonam gis nga alxuraan ak sunna boo ci jàppee rek lu waay nganda nganda nganda bu ngeen defee débat deux minutes nga dóor ko ci suuf même boo jàngula gëmal alxuraan ak sunna rek nga dajeek benn ponkal même yow jàngoo mais dangaa gëm alxuraan ak sunna su ngeen defee débat nga daaneel ko xam nga lu tax yow li ngay wax lu leer la dafa am ay base foo ko jëlee moom lu muy wax dara wéru ci fu mu mujj mooy gis nga yow na nga def attention de waaw yow sama tool foofu lay mujj ak yow ndeysaan day mer parce que amul amul dalil amul dalil maa indahu dalil rawatina nag yow boo jàngee moo tax gars yi ñëw tafsir baax na trop nag waaye sama sëriñ daf ma doon wax ne dem déglu tafsir wala dem conférence mu ne day tàngal rek day tàngal waaye du ñoral de gars yi fexe leen ngeen am lu ñoral mooy ngeen jàngi ngeen jàng ku nekk utal benn téere nga seet ku la jege ku la tane nga nga dem jàng ci moom diine bi dañ koy jàng soo jàngul nga am problème ku jàngul ñu nax la ku jàngul ñu tafu sa pas-pas borom bi subhanahu wa taala mu ne waatay naa jox naa Moussa Moussa sultaanan lay mu biinan bu bir bu leer nañ mu ne war a faana beneen dafati nañ musiba aaya bi nu nekk nii yàlla subhanahu wa taala nee na banu israel def nañ ñaati catastrophe ma baal leen ñaar ñaari musiba musiba bu njëkk bi mooy lan wan ñu yàlla ñaareel bi mooy jaamu nañ nag yàlla nee na baal naa leen xoolal bi leen yàlla baale lu ñu defati yàlla wàcc alxuraan te tawraat ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwa jël leen li ma leen wax ñu lànk ñu ne jëluñu xam ngeen kañ lañ ko jël yàlla dijj montagne bi tiimale leen ko ne leen acca wala mu ne war a faana yëkkati na fawqahum seen kaw ak tuura montagne ba bi misaaqihim ndax seen digg man leen acca jël leen li ma leen wax jabalu tuuru siina moom la yàlla dijjiti tiimale leen ko nekk anamam jël leen li ma leen wax ñu doog a jël allahu akbar ndax dëgër bopp beneen dëgër bopp yàlla mu ne waqul naa lahum ma wax leen uduxulu dugg leen dëkk bii di baytul maqdis su ngeen dugg dugge leen bunt bi albaaba sujjadan su ngeen di dugg na ngeen dugge bunt bi na ngeen sujjóot ndeysaan allahu akbar nee na kaana haza indama daxala yuusa ibnu nun fata musa madinatu quds fatihan awha allahu taala ilayhi an yamura bani israil an yadxulu baaba an yadxulu baaba almadina nee na lii ci jamono yesu la woon yuusa yuusa ibnu nuun ibnu nuun xale Muusa la woon moom moo duggoon baytul maqdis ubbi ko xeex ak yéeféer yi fa nekk ba gañe ko ba gañe leen yàlla daal di wax ci wax yu ci moom na wax waa banu Israil nañu dugg ci dëkk bii di Médi baytul maqdis waaye nañ jaar ci bunt bi waaye bu ñu duggee nañu sujjóot xaadiin mutiin nañu dugg sujjóot di ñu toroxlu waaye di ñu suufe suufelu shukran lillahi taala ngir sant yàlla yàlla la leen wax ala ni'matil fathi ci xeewal bii mu leen defal mooy ubbi leen lii ñu gañe seeni noon ubbi dëkk bi defar ko def dëkku lislaam dëkku diine mu ne fa baddala ñu daal di changer li leen yàlla waxoon yàlla leen yàlla waxoon dugg leen ngeen jaar ci bunt bi su ngeen duggee ngeen sujjóot ñoom ñu dugg di darngu naan xabbatun fi saar xabbatun fi saar loolu lan doon wax ndeysaan beneen beneen weddi sunu borom subhanahu wa taala nettali nu loolu mu ne wa qulna lahum wax naa leen uduxulu dugg leen albaaba bunt ba da ngeen jaar ci bunt bi sujjadan ngeen sujjóot ñu lànk ba ñuy dugg keroog dañ doon darngu xam ngeen darngu ah loolu la tugaloo yi naan ɓaf de ɓe naati wuro ngo eɓe ɓafa ɓe mbiyano ko yoɓe sujju ɓe naati eɓe ɓafa yaane leen sujjool leen ñu dugg di darngu nii mel na ñu amul tubéy ñu bañ a jóg kon ñu gis seen awra loolu mooy darngu yàlla subhanahu wa taala bàyyiwaat loolu yàlla ne leen bu leen rëbbis bu leen nappi samedi ndeysaan wa qul naa lahum laa taadu fi sabti bu leen nappi samedi samedi lañ leen tere napp ñu bàyyi ay fan dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi jën yi duñ ñëw samedi rek jën yi ñëw fees dell géej gi ba génn ci tefes bi di bronze naan ni seen caaxo ñi waaw yàlla da leen nattu ñu ne wax lii mooy lan xam nga nu ñuy def ñu dem diviser wu trois parties ñenn ñu ne dañuy bàyyi ba samedi ñu jël sunu mbaal su jën yi bëree ñu ñëw kar leen kar jën yi comme jën yi génn nañ ba fii ñu dem 10 mètres 30 mètres 50 60 daal di fay def mbaal bi barrière nga xam ne jën yi du ñu mën a ñibbi dimanche duñ mën a daw bu ñu ko defee noonu ñu bàyyi ko noonu bu yàlla waxee ñu ne ko gis nga ñu napp ñu samedi dimanche lañ jëli jën yi leer lan la wax gis nga seen pexe te yàlla waxoon na leen bu leen nappi samedi waaye ndeysaan laa taadu fi sabt ñu bàyyi ba samedi jot ñu jël seeni mbaal dem mbaal jën yi kar leen ba xam nañ ne fi mu nekk mbaal jën yi mënuñ ci doon dem ñu ñëw seen kër toog dimanche ñu dem jàpp jën yëpp indi seen biir kër yàlla ne leen du leen laa leen tere woon ñu ne ko ñun mbaalu ñu samedi dimanche lañ indi jën yi li nga bëgg kenn xamu ko yàlla bàyyi leen bañ dem di jëli jën yi wa qulna lahum kunu qiradatan xaasiin yàlla def leen ay golo waaw ay golo la leen yàlla def ñoom ñëpp te lu garaaw mooy dañoo dem nekk ay golo ñibbisi ku nekk nga xam sa mbokk waxoon naa la bul dem nga ni nga yëngal bopp du waxoon naa la ko nga yëngal bopp ñenn ñi yàlla def leen ay mbaam xuux borom xam-xam nee nañ góor ñi yàlla def leen def ay mbaam xuux jigéen ñi yàlla def leen golo ñu ne day yàlla def golo góor ñi def jigéen ñi mbaam xuux nee na yàlla déedéet dafa jaxase rek mbaam xuux ak ay golo. ndeysaan ñetti xaaj lañ xaajoon ñenn ñi demul seen yoon nekk ci ñoom waaraate ñeneen ñi ñoom dañoo demul boole ci waaraate ñu ne ñi ñaari groupe yi la yàlla mbugal mais benn groupe bi la ñi demoon kese ñoom la yàlla mbugal gis ngeen yàlla tere leen nappi samedi la taadu fi sabt bu leen nappi samedi ñun lan la ñu tere ñun dañuy baali samedi te yàlla wax ne bu leen jalgati samedi la taadu mooy bu leen jalgati fi sabt ci samedi ga yi gaa yëpp dañuy génn samedi waaw anawa si da seen daal ba mu rafet anawa dugg boîte de nuit yi waaw dugg danse nii waaw boo waxee ñu ne dañuy xoosi waaw xoosal ba dajeeg paaka nag kuy xoos ba dajeeg paaka bu ñëw waxuma mu lelli sa talon daal waaye sa tëstanu tànk bi lay lelli yàlla mu ne bañ demee wa axasna minhum jàppoon naa ci ñoom misaaqan dikk xaliis bu tar mooy bu leen nappi mu nekk signature nekk pacte nekk accord bu ne keng yàlla mu ne bu leen ko def laa tatajaawazu bu leen xët ma ahlalna lakum ila ma haramna alaykum bu leen jalgati li araam bàyyi fi lu dagan jëm ci lu araam bu leen ko def yàlla nee na loolu noonu ma leen waxoon wa axasna minhum misaqan galiz dig bu dëgër laa leen waxoon laa signé woon ak ñoom waaye loolu lépp ñu jalgati ko mu ne hasil aaya aaya bi mbokk yi huwa tasliya li nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taxfifan ala nafsihi mimma yulaaqi min taannuti lyahud lii dafa ñëw di dalal xelu yonent bi pour xelam dal pour mu bañ a jàq pour mu bañ a waaru pour mu bañ a tiit ci melokaanu yahud nii lañ mel bu fekkee ñoom nii lañ meloon ak seen yonent kon yonent bi bu ñëwee nu ñu war a mel dañu continuer rek kon yonent bul jaaxle lii mooy seen mbir lii mooy seen melokaan lii mooy seen yàqute lii mooy seen mbon lii mooy seen tilim lii mooy seen jëflante ñoom yahud nii lañ mos a mel kon kuy xaritoog yahud da ngaa xamul ñoom ñooy ñan aay yi nekk sunu kanam ba ci kanam a kanam bi iznillahi tabaraka wa taala yàlla lim ñu ci won mooy melokaanu yahud ak seenug mbon ak seenug tilim ak seenug mën a wor ak seenu ñaaw jëflante ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bàyyi ñu fi ba ñu fekke ko mun koo leeralal mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ko am question insha allah mu gaaw